jaajëf Pape Samb réalisateur fàttali nañu euh, générique gu Walfadjri bi ni ñu ko doon déggee ci Batalo Joola 26 septembre 2022 26 septembre loolu 2001 21 20 ans déjà. nekk na loo xamante ni vraiment kenn dootu ko fàtte. non kenn du ko fàtte parce que c'était une catastrophe euh, euh une hécatombe. loo mhm. xamante ne nii dafa daal di marqué te marqué wul ça je veux dire ñi nga ñi nga xamante ne sax ñoo gënoon nekk xale. Mhm. tout le monde était au courant amul kenn ku mu épargné ma jamono jooju nit ñi ñu ngi doon suivre information bi chaque jour télé ji da doon teel a tàkk ñëpp di xool parce que xam nga Sénégal c'est un petit village. ku ci mhm. nekk am nga mbokk. Mhm. donc doo xam kan moo dugg ci chaloupe bi kan moo dem kan moo euh, euh, rescapé euh, mu nekk vraiment une grande perte lu metti nag ñu joxe woon ay deuil national et tout mais ba léegi ñu koy fàttaliku et li si grave mooy ba léegi. la douleur reste reste pareil en fait. métit bi demul ba léegi métit bi dañul waaye gis ngeen euh, tey groupe bi yëpp mën nañ ko wax rajo bi édition spéciale tey ci subaak léegi. midi plus bi ni ñu ubbee ci euh, fàttaliku euh, suxu batalo Joola ci internet bi noonu la demee li xew ci biir internet bi jaajëfal leen yen internet yeeg téléspectateurs yi miin ngeen hashtag bi midi plus la sunu net Facebook live YouTube live Instagram live. jaajëfal internet yi réaction yëpp jot nañ ko duñ mën di partager comme que seen ba tey eh, xam nañ ne émission interactive la mais yëpp duñ koy mën di partager en temps réel mais dañuy jël parfois quelques messages rek di ko partage mm-hmm. ak euh, internet yeeg téléspectateurs yi CSB di ko jaajëfal moom mooy euh, sponsor officiel yi moo tax ñuy maye téléphone portable yeeg xaalis yeeg. Euh, paasu màggal yi gàmmu yi. comme que joge nañu ci màggal paasu mm-hmm. gàmmu yi. sac yi nga xamante ni euh, entre rentrée des classes la ñuy waajal donc am ngeen possibilité di répondre ci questions yi ñuy posé mooy image cachée tey d'ailleurs indi nañ benn image bu bees kan moo nekk ci ginnaaw image bii ngeen gis wan ñu ko wala kan moo nekk ci ginnaaw image bi mën ngeen continuer commentaire euh, hashtag midi plus Facebook live YouTube live Instagram live. boole leen ci suñu bon de spécifier que euh, li nekk ci sac bi ay gadget la du téléphone. ah baax na de ñu naan euh, bëgg naa ci saag beeg téléphone bi déedéet li nekk ci biir saag bi ay gadget la soo déggee gadget mooy ay mëg li ngay naanee. wala ay chargeur moom mooy ministre auprès des maires. <laughs> du ma benn ministre auprès mais damay damay leerlu rek. Uh-huh. damay bañ ñu jaxasoo rek. saag bi moom yéen a ko moom aussi. am na solo si jili la jógee. léegi li xew ci internet sànq Pape dafa connecté mi ngi doon wax ci éphémère rek. Euh, effet secondaire effet secondaire dinañ ci ñëw actuellement mm-hmm. mooy def tollee ci réseaux sociaux yi mais nañ leen ci ñëw détaillé leen xam ngeen lépp dinañ leen ko euh, faire comprendre ngeen expliquer leen lan moo gën a fees ci réseaux sociaux yi rawatina fi mu ne nii rappeurs yi game bi ñoo oh, téye internet bi dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw mais léegi mm-hmm. dama am na leneen lu xew euh, jigéen ñi dama gis ni léegi yow sa jëkkër terewu la internet ak réseaux sociaux yi kan man te mu xam ne ci biir laay liggéey non na la tere ne la yow génn la ci réseaux sociaux yi bu dugalati photo bul partagé ti dafa xew ko dama gis gars yi xew na mais nag man yàlla dafa def sa ndeysaan man balaa maa dugal photo moom day xool photo yëpp. mu validé mu validé ne ma mën nga dugal yi ma door a dugal. dama gis message bi. moo mari m'exige à quitter les réseaux sociaux dans le cas contraire je dois quitter sa maison. ah. conseil <laughs> jox leen ko conseil. Eh, bàyyi ñu laaj internet yi. jeex na internet yi léegi tontu leen euh, ñu anneau bi. Mhm. moom nee na moom jëkkëram da ko da ko ne soit. mu génn réseaux sociaux yi maanaam Instagram Facebook ak yooyu wala mu génn kër gi. léegi ban la si war a def ndax xameewu ko baa xameewu ko ci réseaux sociaux yi gis naa ñenn ñi nga xamante vraiment dañuy topp seen ndigalu jëkkër ah. bu ñu leen nee génne les réseaux sociaux yi ñu dem génn ci ba set. waaw mais ba jëkkër ji dina génn réseaux sociaux yi moom it wala. ah sa jëkkër mooy sa kilifa. Ah. mën na may laajte rek. gis nga ñii. mën na may laajte rek. dañu doy waar ñi ngi créer débat gis naa. laajte rek gis naa internet yi réagir gis nga leen. commentaire yaa nekk naan sa jëkkër bu la bu la teree woon réseaux sociaux yi ndax di nga nangu waaw wala déet. Mhm. sinon nga génn kër gi réseaux sociaux dafa yëngal dëkk bi de. waaw na na na gars yi tontu rek ñun moom. Hmm. nañu nañu def arbitre nët. li mel ni waa ji léegi naan bu ñuy mayee kii mayee danaan boole mi ngi nii. waaw je vous déclare léegi mën ngeen actualiser actualiser vos. statut Facebook waaye am na tamit keneen ko doon wax ne <laughs> nit bu ñoom bu ñu marié. Uh-huh. dañuy def mari deux def ko ci Facebook waaye léegi bu ñu génnee ci sëy dootuñu ko. dootuñu ko defati. <laughs> yàlla bu kenn génn gisee yi dañu toog gisee yi. amiin en tout cas daal mi noonu xam nga léegi jamono moo ni toll. Mm-hmm. waaw te comme euh, euh, Facebook da nga ci nekk def ci sa profil dafay baax rek nga préciser que ne. tu es baax na ci. waaw dafay daf dafa lay moytuloo yenn yi daal. macha allah ah, internet ah. yaa ngi réagir ñi ngi commentaire léegi nag. Abdou Kane Mouhamed kan moom nee na elle doit quitter. Hmm. waaw moo dëgg la de. Mouhamed kan moom nee na sa jëkkër nee na bu kii kii génnal. ñu xool nag lu lu lu jigéen wax. topp waxu jëkkër waaw la sant. Hmm. waaw bu la nee nii. defal noonu nu mu nga ko waxee. commentaire leen parfois commentaire yi pertinent yi pourquoi pas mën nañ ci may téléphone pourquoi ngi xool. team mhm. baa ngi ci ginnaaw. fold bi léegi commentaire yi tamit bari na effet secondaire ak éphémère. non mais naka la situation bi demee avant effet secondaire ak éphémère. da nga tëb premier acte bi. mooy ban. premier acte bi mooy il y a deux jours. Mhm. Akhlou mhm. euh, dafa daal di génnee benn son def ko clip. Mhm. Euh, featuring ko ak euh, El Menemo ak beneen rappeur. ñu tuddee boobu boobule clip ñu ngi ko tuddee def effet. def effet moo njëkk a dal. léegi nag def effet il a fait cent vingt deux mille vues. bokk ci tendance bokk ci tendance yi. léegi ñu toog ba ci digg bi. nekkete ci biir son bi. dafa am ay pic ak ay clash d'après spécialiste rap euh, rap yi. Mhm. ñu ne yoo xamante ne da doon clash ngaaka. Ah. ñu ne ñoom dañ doon clash ngaaka. léegi ngaaka répliqué tontu léegi nag en moins de 24 heures si même noonu ngaaka moom it génnee soo. léegi clash bi nekk clip clash bi nekk ci diggante booy town yi booy géejawaay yi. waaw ak waa Mbuur yi. voilà ñoom Marie Louise booy géejawaay ak Mbuur léegi nag. Uh-huh. Euh, euh, ngaaka moom bi mu defee réplique am daal di ko génne si YouTube bi il est à 467 000 vues. Uh-huh. yaa ngi comprendre. Mm-hmm. moom nag moom tamit ci ci effet boobu la jël. Mm-hmm. daal di def moom tamit clipé moom tamit daal di tontu. moo tax ku ci nekk fi ne tendance bi mooy team Akhlou Brick ak wala team Ngaaka. team Ngaaka en tout cas. mais attends ñoom ñoo téye. balaa balaa ngaa yegale. Mm-hmm. mu bëgg gaay may gaay A bi ak B bi. pour sànq li nga expliqué. waaw ñu seetaan juste après ñu ñëw ñu yegale explication yi baaba bu leen laajoon seen papa doo danaan leen njaga bay lii nag mooy tooñ ku wéri di laaj leen koy njaga mbay ñaari jank yooyu kii di yuut keneen kii di taal yokku doole teg ci dungu bu xees kookoy kayta saali waaw lu tax bu leen gaay di clash rek naan leen góor jigéen bon arrête de faire genre pourtant ils sont mignons ko ñëw ay rob gaal nga may caga koo ci ruux mu tëb booy xaar xaar nguur ñu nguur eh wala boog professeur u rab bi ñëw na may rabaloog may rabaloog may antidote seen doomu xaj bi juddu démb ay mbaama boot ay mbaama boot eh yow rombaat bi xool gis gànn misira bi naan la eh mbay demal nga toog voilà actuellement ñii ñoo te game bi ci réseaux sociaux yi commentaires yi nii la bare team ngaa koy fii team Akhlou Brick en tout cas gis naa ni lu baax la parce que bon donte c'est pas violent amul ay kàddu yu ñagas amul dara lu kii def nañ ko rab bi jógaat gis nga waa rab bi yeewaat na en tout cas <laughs> c'est pour le plaisir c'est pour parce que ñoom ñëpp nee nañu bu mu sedd na yëngatu waaye gis nga ci biir clip bi dafa am ay effet secondaire ah. dafa am euh, ay ñi nga xamante ne laal nañ leen neneen parce que ngaaka bi mu defee réplique nee nañ daf ci daf ci tudd dib hmm. léegi nag nit ñi nee nañ ndax dib dina yëngatu te bu dib yëngatoo est-ce que Omzo dina yëngatu affaire bi nekk affaire effet de boule de neige léegi wan leen ñu gis naa gars yi commencé yaa ngi génn wax leen ñu ah wala B. waaw A wala B donc am ngeen possibilité réagir ci suñu. mais aussi laal nañ ci ndelu Abba bi am ah? waaw métti na ko moo ci gën sonn moom moom nela bi moom noo def rek. ñu tuddee ko moom wax naa mooy bi moom noo def rek ñu tudd ko nañ ko ci quoi malheureusement. voilà donc en tout cas réaction yi bari na gis naa commentaire yi YouTube yi aussi mi ngi explosé rap Galsen fi mu ne nii. bril sax game bi euh, diggante. Eh, Akhlou Brick la ak leen Blindé gis naa Ngaaka doon def live en tout cas nañ ci ñëw gën ko mais Ngaaka mi ngi indiwaat réplique ah, nee na ah ñu ngi xaar moom it après éphémère bi moom tamit dina génnee beneen jeex na voilà jeex na dinañ ci ñëw loolu eh, gën ko yaatal eh, bari na ci yoo xamante ne mooy xew ci biir réseaux sociaux yi du ñu bañ a wax affaire kalifon waaw aussi affaire de Californie bi nga xamante ne depuis euh, jeudi la daal di xew. mais mhm. si de si euh, week bi la daal di éclaté victime bi ci boppam moom moo euh, joxe mu di aji aja Adja waaw Adja Thiaré Adja Thiaré donc moom mu daal di euh, joxe information bi ci sur sa page Instagram daal di accuser ki nga xamante ne moo di Kaliphone euh, d'attouchement et de viol euh, et aussi de coups et blessures parce que dafa wone aussi kanamam bi kanam bi dafa tuméfié daal di néewi mu ne Kaliphone la joteel ba daal mu dóor ko nii ba aussi dóor yaayam. yëf yaa ngi yëf yaa ngi ci loxo yoon mhm. ñu xaar rek affaire yi nu muy daal di mujjee. li tax ñuy wax Kaliphone xam naa mairie ñaa réseaux sociaux yeeg internet tax ñu xam ko. waaw kooku nag euh, indi woon nañ ko fi waxoon waxtaanoon euh, nañu si waxu Kaliphone ndax moom moo doon faral di saaga. Mhm. Euh, tout le temps ba am na sax benn jour mu taseeg Marème Faye Sall Paris. Mhm. foofu wanoon tegaloon nañ leen waaw photo ak moom tegaloon nañ leen vidéo ba nit ñi nag commencé naan di ko weddi ak yooyu. Mhm. donc indi woon nañ ko fi donc kooku nga xamante ne moom moo nekk Kaliphone ku ñu leen doon expliquer moom aujourd'hui moom moo nekk di. ci problème bi ak ki nga xamante ne moom di xale boobu di am 19 <coughs> doy na waar li ma ci ñaawlu rek mooy ñi nga xamante ni parfois ci seen commentaire yi ñu def apologie viol naan ay lu muy sol ak lu muy def noonu lu ma c'est à déplorer en tout cas gis naa commentaire yi ci réseaux sociaux yi yooyu moom bëgguñu di ko gis ci koo xamante ni dafa ni euh, victime la ci mbirum bu ñu jógee ci loolu dañuy dem Thiès dafa am benn affaire bu doy waar bu fa mm-hmm. xew Thiès euh, benn euh, waaye benn xale mm-hmm. boo xamante ni ci taw yeeg taw week-end yeeg yooyu jaar ci wetu porte lampe rek courant bi jàpp ko. ñëpp yaakaaral ni mën na ci jaare ñàkk bakkanam mais finalement population bi ñoo ci jàpp dimbali ko ak ay bant ba final ba alhamdulilah. mujjul ñàkk bakkanam euh, ñu dégtal leen vidéo bi ñëwaat. non voilà image bu doy waar mais plus de peur que de mal heureusement leen. Eh, oui lii de population bee ci jàpp. alhamdulilah gis nga ay mm-hmm. bant lañ ko jox noonu. pour mu génn ci ndax. bu ñu il est mm-hmm. ko bant nga koy laal bant nga koy dóoree. ça c'est une belle image moom jaajëfal baax say latir suñu mm-hmm. correspondant bi nekk Sèye Thiès moo ñu ko partagé. ministre des sports bi aussi ci Yankoba Diatara gis naa ci réseaux sociaux yi ñu ko doon clash ndax lan dafa publier partagé eh, match Sénégal bi joxe xibaar boo xamante ne donte gars yi gaañoo parce que dafa daal di def benn texte boo xamante ne mu ne match bi dañ ko retransmettre en direct euh, à partir de 17 heures euh, GMT sur la RTS alors que ne match bi jeex na depuis 19 heures loolu xam na lu koy indi waaw problème connexion rek la non apparemment man j'ai eu l'info ni moom mooy gérer page personnelle. ah parce que nit ñi dañ ne est du CRM. maanaam ki nga xamante ne CM community manager. moom mooy gérer page. c'est un problème de réseau. problème de réseau voilà. ah oui t'as compris. regarde <laughs> je suis en parce que euh, la plupart de mes comptes maa ko géré. Uh-huh. Mm-hmm. maa ngi posté benn affaire. Uh-huh. posté naa ko depuis euh, depuis sànq bi ñuy photo uh-huh. mais affaire bi demagul. mais effectivement genre xam naa ay quinze heures su ma amee réseau. parce que sama réseau kër moo gën a baax réseau fi uh-huh. su ma yeggee sama kër ba fekk fa réseau bu baax ci la photo bi doog a dugg. mais effectivement noonu rek la explication bi joxe nga ko noonu la léegi dañuy dañuy tëjee ak ministre Dame Diop. vidéo bi ah, ah, def na ah def na def na buzz ci réseau. laal ngeen ma laal ngeen ma laal ngeen ma. ah oui parce que man. man j'ai vu tout le monde. quand mhm. il y a ku nekk génn nga ministre bi nekk sa xarit. oui mhm. Mhm. man ci remaniement bi faatu Diané mooy sama xarit kontaan ah. naa. mais daam Diop mi dem. Ah. ci gouvernement bi passé. Ah. moo ci nekkoon sama xarit. ci constance am. ci mbaaxam. ci bëgg Jurbel. ci yaroom. gis nga bu ma ko invité waan émission quartier général ou déclic ou whatever mhm. c'est-à-dire bu émission bi waree am vingt heures mhm. dix neuf heures daam mu ngi ci loge yi toog mhm. maanaam yaru waxuma pour ay wax nii rek ah mais yaru professionnel et euh, ministre bu baax wàcc na mais El pour rejoindre li ngay wax bi muy euh, defee passation de service maanaam jël lenge yi joxe ko Mariama Sarr ci saa si dafa daal di delloo lépp loo xamante ni ministère bi moo ko moo ko ko joxoon. Ah, effectivement ñibbi ak otoom. très bien donc vidéo loo xamante ni. Euh, bariwul luñ koy gis moo tax ci réseaux sociaux yi aussi. ah bi tam dafa bi muy dem yóbbaalewul dara. yóbbaalewul dara et c'est que ne normalement ñoom quand ils sont démis de leur fonction. ils ont jusqu'à six mois. pour euh, li nga xamante ne mooy carte oto yi mais ah. moom mm. sur le champ. la bàyyi euh, chauffeur de service bi ak auto de service bi déposer carte rapido bi jël propre auto personnel am ñibbi. un bel exemple. man de bu doon man la damay yóbbaale carte <laughs> te du ma delloo oto yi. <laughs> mais xam nga lii mooy normalité. <laughs> bu ñu demee nag ba normalité nekk exception. voilà c'est grave. voilà te lii mooy lii normal. moo tax c'est à saluer un bel exemple jaajëfal ko jaajëfal ko pour ñeneen ñi nga xam ñu ngi suivre aussi ñu mën a jël exemple yu ni mel Elage mm. en tout cas noonu la ñuy tënkee tey li xew ci biir internet bi bàyyi internet réagir am ah. ngeen possibilité réagir ci même bu émission bi jeexee ci suñu chaîne YouTube bu télévision Futur Média ak hashtag bii bi midi plus suñu mm. net Facebook live YouTube mais yéen mais dégguma leen ba tey ngeen wax ci effet secondaire ak éphémère ah, ah, ma pause naa commentaire gis naa yenn ci internet yi ñuy commentaire. Akhlou Brick. allo ah, Akhlou Brick. Akhlou Brick. ani tuut ngaa koy tiim ngaa koy yëngu ngaa ko blende <laughs> ngaa ko blende. Eh, mais Pape Pape ñu ngi xaar ñu ngi xaar seen ma.